Touba ca kanam asalaamaaleykum askan bi maa ngi nuyu sama mbokk yëpp nekk Touba di nuyu sëñ bi sëñ Muntaxa xalif général de Mouride di koy bépp euh, maanaam kilifa bi nekk Touba di daan nag euh, Touba ci kanam pour man modèle la bépp ndaw bi nekk Sénégal bu fekkee si réew mu la tax jóg war ngaa mën a jël modèle boobu ay jeunes décidé bu ñu bëggee defar dal seen réew ak seen i gox cotiser wu defar ko am ay résultat résultat yaa ngi ni ci li ngeen def yëpp gis nañ ko magazine bi ngeen defar nii am na importance lool ah euh, conférence bi ngeen di def di ci woo jigéen yi macha allah te réalisation ngeen def Touba gis nañ ko mooy tali ngeen defar adduction d'eau ak yooyu je pense que modèle boobu dañ ko war a démultiplier ci Sénégal yëpp. gox bu nekk war naa am Touba ci kanam parce que liggéey bi ngeen def loolu mooy développement te yaakaar naa ne sénégale bu nekk bu ci duggale loxoom dina tax réew mi avancé jafe-jafe xale yi wàññeeku gàddaay bi wàññeeku euh, immigration si bi wàññeeku parce que dafay wone que mun nañu créer modèle bi nga xamante ne c'est autocentré ci suñu liggéey te li ngeen def ne Khadim Bamba Diagne bind na ko ci livre bu mujjee génne l'économie mouride expliquer naka la Serigne Touba ñoon doon def pour développer seen gox-goxaan jël si exemple Xelkom bu kii di euh, Serigne Saliou du mu defoon ñëpp gis nañ daara yi ak xale yi nu ñu amee liggéey am métier yaakaar naa ne bu ñu ko defee ci réew mi rek ah yaakaar naa Sénégal dina am dina am euh, ndam parce que réew mu amee pétrole ak gaz baax na trop waaye xale yi bu ñu nangoo liggéey nekk ci mbéy mi nekk ci école bi nekk ci lépp ci daara yi dinañ di solo loolu. te fii Sénégal boo xoolee ci jaar daara modèle bu ñu yoree de développement c'est autocentré authentique la toll nañu si réew bi xam ne war ñu xoolaat lu ñu tegee suñu économie te foofu lay jaare yoon bi foofu la moo tax ñun groupe E-Media ñu naan Touba ci kanam moom modèle bu ñu teg moom la ñu gëm daañu ànd ak ñoom si liggéey bi jàppale ci bokk yéen xam nga li ngeen defar réew mi rek ñeent pour ko defar Sénégal bu naatee ñëpp la naatal. moo dañuy kontaan seen euh, teewaay bi fii di wone ci Touba Ca Kanam la bokk man jël naa suma carte de membre ñu nii ah, damaa bokk Touba Ca Kanam bu leer ngañ bokk na ci Mamour bokk na ci daañ ko gën lawal ah, su ma amee beneen kii naa wut samay doom yi tamit ñu inscrire ci Kanam parce que c'est chez nous ñun la suñu yëf la jërë ngeen jëf Touba Ca Kanam bi jaayi xayri ma nabaat